génnee rek ñëpp perte te jigéen nag ñëpp ñoom la élection yi di ñëw si nii campagne bi di ñëw di ubbi le le 3 dinañ fi wàccee saaku ceeb bii moom mooy raw lépp chambre à coucher bu ngeen bëggee bu ngeen ko laajee ñu jox leen ko ma eh, non non daf ma leer bu ngeen commandé chambre à coucher ñu indil leen ko yéen nag yéen seen choix personnel la man de duma ko jël man dans ma vie kenn mësuma jënd sama bii laa yaakaar ak sama allahu akbar man duma ko jël ku bëgg nag na jël am na ñii naan damay jël ñii naan du ma jël man si ñu dul jël lay bokk ku bëgg na jël mais bu leen yaakaar ni ñoom ñëpp si seen poche lay jógee amul kenn ku muy jógee ci sa poche su benn paquetu almet ñaata lay jël tër juróom su meen ko jëndee fay ngeen 18 pour cent de TVA boobu ngeen di fay 18 pour cent jaaykatu marché bi di fay 18 pour cent société mag yi di fay 18 pour cent moom la ñuy jël yóbbu ko ca trésor xaalis boobu la ñuy wëlbatikuwaat ñoom sàccaat ka jël ko. yaakaar ne ñoom ñoo leen koy may ñoom seen salaire mayu leen loolu amul benn politicien bu si salaire am may loolu moo tax damay jéelu di leen ñaanaat façon tànnin bi seetaat leen ko bu leen topp asan mii su fekkee discours ba mu leen di wax doy na leen muy noonu ngeen ànd moom ci discours laa wax de wax ma ci jëndam njëmmam de su fekkee discours bu leeru leen delluwaat leen ba ci moom nga ne asan sa biir discours de wax nga ma si li nga xam te ni leeru ma bu leen leeralee ba mu leer ngeen topp ko bu leen leerulu bu leen ko topp danoo sonn ci topp ki nga xam te ni suñu dëkkandoo la wala suñu bopp Sénégal tey lañu gën a sonn tey lañu gën a pauvre te mën nañ cee génne suñu bopp parce que Sénégal pays immensément riche lañu ñun France ñoo ko gën a riche fanweeri junni yoon ndax ñun am nañu pétrole am nañu gaz am na nañu zircon am na nañu minerai am nañu li nga xamante ni ñaar yi nga xamante ni yàlla moo nu ko may te dëkk bu ko am riche 700 kilomètres booru gé de mer 700 kilomètres de côte de mer mooy booru 700 kilomètres de ci Nous ñu am 365 jours de l'année naaj ñun courant waru woon dar dar ci ñun mais xam ngeen loolu tax parce que gouverne suñu gouvernement yi ñu am su ñu ni jiite ay poltron lañu ay tapet sañu ñoo jël ay résolution loolu rek moo nu ko tek mais ñun courant wala ndox ñun yomb la ndax ñun suñu dëkk bi dafa am ndox am nañu ay fleuve am nañu ay géej am nañu courant ci naaj bi mën nga ci tibbee courant indi ci géej gi mën nga ci tibbee courant indi mais on est tellement pauvre man ba ma juddoo ba léegi am naa 40 ans boobu di jaar Pikine di yóbbu minerai yi train bleu boobu di jël xaw ma fu mu koy jëlee mais man daal dina ma romb ba léegi ma maa ngi koy gis phosphate bi ba léegi maa ngi koy gis ñu koy yóbbu xaw ma fu ñu koy yóbbu te ñun ñoo ko moom. loolu nag du ci phosphate bi kese ci or bi la ci zircon bi ci k France amul dara ci suufam

ñu ni la faalewuñ wala bu fekkente ni daf na lenn yow bi ñuy woo da pour jënduñu duñ la faale duñ la topp ndax nag kaay leen ñuy waxante dëgg nag wéet gore wéetali gore il est temps que sos sénégalais ñu change suñu jikko